ca lam tàggatoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam warsagal ñu ci ngëneelam ñu dëkk ak ñoom ci kërug teraangaam mbokk yi yéen a ngi fàttaleku suñu dars bi ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam ñu nekkoon ak yéen ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa salam ci yaay ci yaay ñi gëm yàlla subhaanahu wa taala bal ma ne tànneef ci yaayu ñi gëm yàlla subhaanahu wa taala mooy dundub sunu yaay Aïsa radiallahu anha jigéen ji ëpp xam-xam ci mboolem jigéeni xeet bi fàttaleku ngeen ci dars bi weesu jaaroon nañu ak yéen ci suñu Aïsa radiallahu anha nu ko labatalee yonent bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw ga nuñ ko ko jébbalee gannaaw bi ñu gàddaayee jóge Makka ñëw Madina te fekk ne famille famille yu Abubakar ak bu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñoo ànd gannaaw bi ñu ñëwee ñoom yonent bi ak Abubakar ak lenn ci saxaaba yi ba toog Madina la ñu soog a yónnee ñu jëli seenu njaboot ñaari fam njaboot yooyu ñoo ànd ñëwandoor Madina euh, fàttaleku ngeen seetlu yi nga xam ne suñu Aïsa radiallahu anha wane na ko ci képp ku ci xale na nga war a sàmm wante ak tolluwaayam ci xale ak bëggam po en tant que xale nga seetlu yonent bi alayhi wa sallam na mu daan yeggee ci di ko yebalal ay moromam ñu koy fole si ñuy foxandoor si ak moom waaye ñu jaaroon ak yéen ci xew-xew bu màgg boobu ci lislaam alquran di ko waxtaane muy des ila yawm alqiyaama te mooy fen wu rëy woowu ñu fenoon ci koow deeru suñu yaay Aïcha radiallahu anha fen wuñ jëmale ci biir kër yonente bi salallahu alayhi wa sallam te muy xadisu ifk yéen a ngi fàttaleku suñu yaay Aïcha radiallahu anha ba muy nettali xew-xew bi la mu njëkk a wane mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak mandum ci nu muy tukkee ak ay soxnaam mooy ne du doon day tànn ku ko neex rek mu ànd ak moom tukki waaye day bantale seen diggante def tirage au sort ka turam génn kooka lay àndat tukki euh, fàttaleku ngeen xew-xew bi nim leeralee ne xaswatu muraysa ca la amee woon ak la ko ko yóbbee foofa baax nañu xool ci tuuti benn sew-sew mbokk yi mooy ñàkk diisoo du tuuti ñàkk diisoo du tuuti si Aïsa radiallahu anha génn gu njëkk ga mu génnoon dem ca wanag wa yëglu woon na xamoon nañu ne génn na dem ca wanag wa dellusi na jàpp na ne war naa mën a dugg ci xaw daj gi dem fàttaleku na caq bu dagg bi mu soloon yoon wi demaat na ti yëguñu ne demaat na demaat na seeti ji caq ba li xew gannaaw gi foofala kewe xewe gis ngeen seetlu bu mag bi nga xam ne def na ko ci Safwan mu Mu'attal bi mu ñëwee fekk ko fi mu tëdd wane ne xamoon na ma lu jiitu ñuy digle xijaab sama kanam mu réeku woon na bi mu ma gisee xàmme na ma mu dal di tudd yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma dal di yeewu muur sama kanam ca laa a dégge benn kàddu bu génnee ci moom mu womat ma bañ fekk julli di fa ñuy yendal nga alko ci moom foofa lañu alko fàttale ku ngeen noonu yàlla bi Abdullah ibn Ubay ibn Salul kàddu yu salte yamu wax nga xam ne kàddu la yu muy sax nopp yi ngir ñu mën koo waxtaane te fekk moom ku ko laaj dafa naan lu ma wax ndax dafa gis rek ne kii kan la Aïcha ne waaw mu ne ah seen soxna yonent bi mu fanaan góor ci àll ba ba waxtu yi la koy sogo woman mu ñëw wallahi muccut ci moom lii la wax wax jooja fàttaleku ngeen la mu jur weeru lëmm fitnaa ngi ubale madina su ma waxee fitna sax day woyof dama naan aw xëyn wu ñuul kukk wu xam ne kenn gisatul yoon wam war a jaar mu ngi ubale madina yonent bi sallallahu alayhi wa bokk ci ñi du dugg ci ron xiit woowu ron nga la mande jooju ndax bu wax yu wàccut ci moom nit la ci nit ñi bu wax yu wàccut ci moom nit la ci nit ñi lu nit ñi xamul xamu ko wax yu moo ko teqaleeg nit ñi qul innama ana basharun mislukum lan mooy différence bi yuuxaa ilayya yuuxaa wax yu ñëwut waaye fàttaleku ngeen fa mbir ma yegg ci metti ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam ngël mandem yeggale na ko bu ngeen seetloo ci mu jaar ci ñetti étape ñetti jaar-jaar jaar-jaar bu njëkk bi mooy lii mënatuma koo won naa xool ñaar ñu ma taq ma diisoo ak ñoom woo usaamatu bnu zayd ku nekk xam na usaama ki nga xam ne bëggitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomi bëggitam baayam la yonent bi bëggoon mbëggeel gu yéeme gannaaw baayam mu bëgg ko mbëggeel gu toll noonu kooka la ak kan ak rakkam doomu bàyyi taxam ji nga xam ne xale la nekkoon ci këram moo ko yar mu bokk ci ñi ñëkku ñi ko njëkk a gëm bokk ci soldaaram yi gën a fidèle ñii ñaar la woo diisoo ak ñoom xam ngeen ne Alioune dereeti geño dafay dal di feeñ ci moom xool dayob geño gi ñu bokk tuuma ju ñu ju ni mel di dugg ci seen biir kër yonentub yàlla lu ni mel sama mag ji ma yar lu ni mel di nekk ci biir këram gàkk bu ni mel ndax war naa am ci derub kërub ku ñu ne ab yonent la Aliyun ne yonent yàlla xatalul la jigéen ñi dul moom bari na te boo laajee jaam bu jigéen bi ci kër gi moom dana la wax dëgg kon na nga leerlu foofa usaama moom itam beneen taxawaay mooy xam na yonent bi sallallahu alayhi sallam ak cofeelam ci soxnaam xam na itam laab ak sell ak mbaax njub gi mu xam ci Aïsa ca saasa genn kàddu lay mën a wax mooy yonent bi ñi wax waxuñu dëgg sa njaboot sa njaboot la téye leen xamaluñ leen lu dul ak yiw fàttaliku ngeen barira biñ ko laaje bu ma nee barira jaam bi nag dama naan jaamoon bi ndax barira ay sa moo ko jënd goreel ko lu jiitu muy nekk ci kër gi cib sëy la nekkoon Aïsa jënd ko ci alalam goreel ko mu bàyyi sëy ba ndax ab jaam la doon sëyat te tànn na léegi comme gor la du sëyat ak jaam mu nekk ci kër gi kon jaamoon la waaye dootul jaam léegi ba mu ko laajee lan la wax moo ne gi su ma amee dara lu may sikk ci moom mooy ne ab xale bu ndaw la bu xam ne danay mooñ gëmmentu jàpp ko mu nelaw fa sax ba jur gi ci kër gi ñëw lekk am mooñam yonent bi yemul ci loolu de def na lu gën a xóot mooy wujj faf wujj muy Zeynabu bint Jaash yegg na ci dem ci wujj Aïsa ne ko loo ci xam lan la Zeynabu tontu mu ne yonent bi damay aar sama nopp ak sama bët sama làmmiñ nu sama bët muccee ci lu ñuy wax sama làmmiñ na ci mucc man daal xamaluma ko lu dul yiw te moo ne da kooka mooy wujjin wujj wim gënoon di biiranteen mbagg Zeynabu bint Jaxs ci mboolem kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moog Aïsa ñoo ci gënoon di diirante mbagg waaye taxul mu ne am naa bunt am naa bunt bu ma ko xappee mbamb mu ñu dut fàtte am naa bunt bu ma ko gën a pala déedéet lu tax parce que wujj nga wujj ak nite waaye lii palaasu ngëm yàlla la ak ragal yàlla loolu feeñ bu baax a baax ci kàddu Zeynab bint Jahsh te xool leen moom miy wujjee ngëmam ak ragal yàllaam aar na ko waaye rakkam mi nga xam ne daf ko doon wujjeele dong ngir wujjeele tax na moom dugg na ca wax ja muy Xamnatu bint Jahsh lu mën a xew étape boobu yonent bi sallallahu tàmbalee na ci muy ñaar ñi taq ci moom mi naan mi ci kër gi wujju Aïsa yii yépp lu ko dëgëral ca la mu jàppoon ci waa këram la fa jële ca la séqi jéego ñaareel jéego ñaareel bi mooy am na conviction léegi kon ne li mu jàpp ci njabootam ne ñu set lañu ñu set lañu léegi nag na dem ca pénc ma pour wut walla nag ci ki ko tu ki ki yàq derub njabootam na dem ca pénc ma wut walla cikki ko lor ci njabootam muy jéego ñaareel taxaw ci jàkka ji ne kan moo may teggil ngant ci ki nga xam ne lor na ma ci sama njaboot te xamalu ma sama njaboot lu du diw tudd ci itam waaju xam ne xamaluma ko lu dul mbaax mosula dugg ci sama njaboot lu dul moo mën a ànd waaye gis ngeen la ci juddoo fitna ju xam ne yegg na ci aw awsa ak xasraj bëgg a xeexi ji léegi rayante ba yonent bi talatut ku ko wallu ci li mu bëgg waaye mu ngi tal fi ne ay saxaabaam dal dellu ci jàmm bi ñaari étape yi yëpp réussirut la siqi étape bu ñetteel bi mooy ndey mbill gi ci boppam naa dem toog wax ak moom xam ngeen ne ci la yonent bi sallallahu alayhi sol daalam dem ba ca Aïcha mu toog ak moom ne ko Aïcha nag li ñuy wax wax nañ ko su fekkee ne xam nga ne danga nga laal dara ci bàkkaar na nga dellu ci yàlla tuub jéggalu ko te xam ne jaam su defee bàkkaar bu tuubee jéggalu yàlla yàlla dana ko jéggal su fekkee nag li ñu wax ku ci set nga xamal ne yàlla dana la setal xam nga ne étape bi moom amul bu ko romb su fekkoon réussir na ci bi yu njëkkee du yegg si ci bi waaye bi moom fi sas léegi te nag xam leen ne nit en tant que nit nit rek la am na lu dënn àttan wala fi dañu ne xol du woom ñu koy bës gis ngeen waajuri Aïcha yi ñoom it mënuñoo dugg ci wax ji lu tax parce que xamuñu kumpa mbokk yi xew-xew yi lañu alquran tudd tënkal ci suratu an nuur yàlla subhanahu wa taala wax baadu ausbillahi min alshaitan arrajim إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ maktasaba min al ism walladi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim lawlaa istamictumuuhu danna almuminuuna walmuminaatu bi anfusihim xayran wa qaalu hada ifkum mubin lawlaa jaa'uu alayhi bi arbaati shuhadaa fa id lam ya'tuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika inda allahi hum alkaadibuun wa lawlaa fadlu allahi alaykum wa rahmatuhu fi dunya wal axira lamassakum fi ma afadtum fihi azabun azim istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluuna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa taxsabuunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم yaisukum allahu an taudu li mislihi abadan in kuntum muminin wa yubayinu allahu lakum al ayat wallahu alimun hakim عند الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم yaa ayuha alladina amanu laa tattabicu xutuwaati shaytaan wa man yattabic xutuwaati shaytaan fa innahu ya'muru bilfahshaai walmunkar walawlaa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakina allaha yuzakki man yashaa wallahu samiun alim ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله falyaafu walyasfahu alaa tuhibuuna an yaxfira allahu lakum wallahu gafuru rahim inna alladina yuhibuuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu lahum cadaabun alimun fi dunya wal axira إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yacmaluun yawma isin yuwaffihim allahu diinahum alxaq wa yaclamuuna anna allaha huwa alxaqu almubin alxabisaatu lilxabisin walxabisuuna lilxabisaat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون lahum maxfiratum wa risqun karim mbokk yi aaya yi ila yowm alqiyaama ñu koy jàng muy setal soxna yonent bi salallahu alayhi wa sallam waaye kon di tëj gémmiñu raafida tëj fenloo chia yi nga xam ne lu bon lu nekk taqal nañ ko deru aïsa aïsa yàllaa ko setal ca juróom-ñaari asamaan def ko alquran ju ñuy jàng yàlla subhaanahu wa taala lan la wax ci aaya mu ne wér na ni ñi nga xam ni ñoo indi fen wi ñoo sos wax ji ab kuréel lañu ci yéen seetlu ngeen ko di xos ba lañ kon ñu ñu xam lañu ñu xam ne dañoo bokk si ci lislaam ci biti amu complot pour bëgg yàqal islaam ci biir ñooñu di kuréel boobu kompolo bëgg yàqal islaam ñoo indi wax ji ndax wax la ju xam ne dafa jam laa bëgg yonent gi ci boppam mandu kër yonent bi wa bittaali dëggug ak yonentam su fekkee ne mu ngi woote bi indi lu jógee ci yàlla lii mën a xew këram loolu dafa jëm yonent gi ci boppam yàlla ne ab kuréel lañu ci yen waaye nag yéen ñi ñu taqal wax ji yéen jullit yi dund coono yi ak mettit yii bu leen yaakaar ne loolu musiba la ci yéen déedéet yiw la ci yéen benn étape la ci état bi yar bi yàlla yar société islamique ñuy dund dundinu expérience yi ñuy jaar ngir mën a xam liy xew ci société bi ñu xam nuñ koy faje weeru lëmm ngi nii madina jaxasoona yàlla subhanahu wa seetaan waxu dara lu tax dafa leen di jaarale ci ab formation bu xam ne bu ngeen ci génnee ñor na ngeen xam ne ña wax wax ja ñoo moom seenu mbir kenn ku nekk ca ñoom nag gàddu na ci bàkkaar kemtalaayu dayoob la mu participer ci mbir mi waaye ka méngoo sos ga ak tàmbali ga la ca gën a rëy ka ko méngoo te mooy Abdullah ibnu Ubay ibnu Sayu Salul kooka moom mbugalum àdduna ak àllaaxira mu ngi koy xaar yàlla subhaanahu wa séqeeg ñun jeego bu njëkk ci mbir mi gis nga bépp xabaar ngir nga jox ko fulla ak nga ñàkkal ko fulla jeego bu njëkk ba nga ca war a séqi mooy ana dalil ana dalil ana firnde yàlla ne lawla istamiatumuhu danna almuminuuna walmuminatu bi absihim xayran wa qaalu hada ifkum mubin lu tee ba ngeen déggee wax ja jullit yu góor yëg yu jigéen ñi yaakaar ci seen bopp aw yu ndax kat jenn jëmm ji la doonte morso yi limtu na waaye jenn jëmm jullit ji la kon bu ñuy yaakaar ci seen bopp mooy lañu ñu yaakaar ci Aïsa ak Safwan ibnu Attal yàlla ne lu teewoon yaakaar seen bopp yiw ñu waxal seen bopp ba kàddu gi jibee rek ne hada ifkum mubin lu tax muy fen parce que dalil amut bu dalil amut ñaareelu jéego xanaa seede war naa am yàlla ne law laa jaaw ali bi arbaata shuhada lu tee ñu indi ñeenti seede yu seede ne lii ñuy wax am na amuñu seede yàlla ne xaama kenn de waaye fa yàlla moom ñoom ñooy fenkat yi la ilaha illallah seetlu ngeen étiquette bi waxoon ne rek fenkat lañu waxoon ne rek na ngeen xam ne ay fenkat lañu waaye dafa adressé ne ki nga xam ne bu àttee àtteem sans appel la sans appel lu mu xas àtte amut kuy waxati naan nañ ko seetaat te it kenn mënta delloo ab àtteem la mu dogal sotti na kooka moo àtte fa moom ne ñooñu fenkat lañu ulaaka inda allahi humul kaadibuun yàlla ne yéen ñi ci dugg yëpp laay wax bu doonte doon a ngëneelu yàlla ak yërmandeem jumaleen ëmbal yéen jullit yi yéen xeet wi yéen yërmande ak ngëneel gu mu leen ëmbal ci àdduna ak àllaaxira bu doonte wudoon ak loolu kon mbir mi dana ñàng kon ah, mbugal mu metti doon na leen la yàlla mu ne waaw kenn ku nekk ci yéen na natt mbir mi ci boppam xam ngeen ne abu ayub al ansaar yi digganteem ak soxnaam ñoom foofu lañ daal di taxaw umu ayub dafa ne abu ayub man ndax dégg nga liñ wax ci Aïcha mu ne dégg naa ko kay fen wu rëy woowu ñu fenal Aïcha dégg naa ko de ma umu ayuba loolu ñu waxal Aïcha ndax yow jàpp nga ne da def lu ni mel mu ne sori naa ko mu ne ko moo la Aïcha la gën kon nañ jàpp ne fen la umu ayuba ne man it dee loolu laa jàpp ndax damaa jàpp ne mos abu ayuba soo nekkoon palaasu safaanum nu mu àttal la wax ne def na ko ci kër yonent bi doo ko def te safaana la gën xanaa jooja wax féete boor yàlla ne nag ñii ñépp loolu lañ waroon a def xabaar bu rafetut xabaar bu ñaaw su jibee marxala bu njëkk ba étape bu njëkk bi nga war a séq yow jullit bi nga dégg lu baaxut ci sa mbokk jullit étape ba nga war a njëkk a séq mooy nga jortawoo ci sa bopp sa mbokk jullit ne lii du dëgg fenloo ko ci saasi boo demoon sax nag ba mbir mi nga yëg ne li ñu wax naam am na de waaye njombe la ab jullit def ko njombe njombe la ku bëgg a dund sunna def ko ndax da ngay gàddu salaam yi war koñ bi yow wax ko foo tool ne mbokk dégg nga waa ji li mu def mbokk dégg nga waa kii suñu waajo yi la mu def fële mbokk xanaa yëgoo lu xew déedéet law laa istamaatumuhu qultum maa yakunu lana an natakallama bi hada même bu fekkoon sax yëg nga lu mel ni am na ne xawma ku koy dégg ci làmmiñ da waaye du doon sama làmmiñ lañ koy déggee man man dee du ma lii moom du ko ñepp gémmiñ mu ne li ngeen waroon a wax ba ngeen ko déggee ngeen ne lii fen wu biir la duñu ko wax yàlla ñu ngi tudd sa sell di saxal ne li aw fen la yàlla ne waaye xoolal gaa yi xaw istalaqawnahu bi alsinatikum bi ngeen koy alawteku ci seen làmmiñ seew ngeen baat bi bi ngeen koy alawteku ci seen làmmiñ dafa mel na wax ji ña ko wax bañ ko yëkkatee dugul sax ci nopp ña ko jëlaat dafa mel na làmmiñ ña ko wax rek làmmiñ alawteku waxaat ko ñu jokkale ko ba tas ko Madina yëpp waaye nag mbokk yi nañu góorgóorlu ju moytu ku jéem a baax nañu xam ci yow mbaax doom sag mbaax nu mu siiwee bu ñu la déggalee lu dul mbaax nu ko raw la ko ngelaw liy siiwale kon nañu jéem a sàmm sunu góor góor lu ci mbaax yàlla ne seen seen làmmiñ yaa ngi koy alawte ko ngeen koy wax ci seeni gémmiñ te amuleen ca benn xam-xam تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ngeen yaakaar ne lu simple la lu woyof la wa huwa inda llahi azim lu màgg la lu garaaw la fa yàlla yàlla subhaanahu wa taala xamal ñu ne ngëneelam ak yërmandeem moo tax mu bàyyi mbir yi nii waaye bu dul woon loolu dana ñaaw na xam ne nag yii ci pexey seytaane la bokk ay jéego la yu leen seytaane di rëddal pour ngeen dox ko moytu leen ko laa tattabi'u bokk na ci màndargaay topp jéegooy seytaane mooy digle lu bon di tere lu baax te nag képp ku xam ne dafa bëgg lu ñaaw di siiw ci biir ñi gëm kooku yàlla dencal na ko mbugal mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala leeral na garaawite fii mbir mi ak jullit yi jëlee ci leçon bu leer ci ne dëggantaan yar yi yàlla ne nañ ko teg ku ko tuumalaate njaalo yu ye yu jaadu la ndax bu fekkoon yar yooyu amut ay kër danañ yàqu ay sës ay sëy danañ tas ay deret dana taq yàlla subhaanahu wa ne gis ngeen lii du ma seetaan mu moo tax ngeen xool ca ay ya jiitu ca saaro yàlla ni képp ku fi ñëwati ñepp gémmiñ ne diwu def nag njaalo indiwut ñeenti seede amul firnde ju ñu mën a teg loxo kooku dóor leen ko juróom-ñett fukki yar wala seen yarmuna lam yatu bi arbaati shuhada fajliduuhum thamanina jalda benn wala taqbalu lahum shahadatan abada ñetteel ba ulaika humul fasiqun yàlla ne ñi gàddu seen làmmiñ tuumaal jigéen ñu sàmm seen bopp ñu tuumaal jaalo indiwuñ ñeenti seede yu firndeel loola yàlla ne kenn ku nekk ci ñoom dóor leen ko juróom-ñett fukki yar muy benn ñaareel ba bu leen nangooti seede gaa yooyu ba mukk waaye taqbalu lahum shahadatan du tey rek de abadat ñooñu bu leen nangooti seen seede ba mukk yemut ca de ñetteelu étiquette bi yàlla ne ñooñu ñooy faasiq yi ñoo ñoo ñu génn topp ñi ma mbokk yi ku xool gravité bii xew ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam da yëg ne ñii mérito nañ ko te bu fekkoon loolu amut ku nekk lu ko neex wax kon musiba am moo taxit li ngeen di dégg ñaare ci réew mi ci presse bi benn ilimaanu jàkk nangam benn sëriñ daara nangam benn borom kër nangam ñu jàpp ne loolu lu woyof la ñu koy jokkalante di ko bind ci journaux yi di ko wax ci rajo yi mbokk yi nañu xam ne lislaam a fi sori de te it nag su fekkee yarub lislaam sori na fi ci àdduna ñun nañu moytu suñu bopp yarub lislaam dal ñu ci àllaaxira bu ñu mënul tere waxkat ya de wax la wax ñun nañu téye sunu làmmiñ ci li lii xew bi kàddu yi jibee seetal Aïcha Abubakar radiallahu anhu ne ah mustaxri comme moo wax ci Aïcha lu ni mel te bul fàtte na jarbaat la ci moom ku ñàkk la bokk ci ñi gàddaay bàyyi ko Makka ñëw Madina Abubakar moo yoroon dépense am Abubakar ne ndem mooy wax ci sama doom lii géñ naa ci yàlla ne dootuma dépensé ci moom dara benn njëriñ dootuma ko jariñate yàlla na déet yéen yéen a ngi def bàkkaar de yaakaar yàlla jéggal leen seen bàkkaar yooyu kon nan la leen nit di tooñe ngeen du ngeen ko baal ne la ngeen ko doon jëriñ da ko teggi mbokk yi nañu xam ne taxawaayu nit ak limitam nit taxawaayam cig nitéem dafa am limite waaye la koy teqale ak taxawaayu nit kese mooy gëm yàlla ak ragal yàlla Abubakar dafa waxoon loola ngir ak nite ci dégg ci doomam lu ko naqari ci ku xam ne mu ngi yoroon njariñam mu ne kon sama njariñ danaa ko dagg ci moom yàlla ne déet li ngeen séq ak yàlla te bëgg yàlla di leen ko jéggal nag kon lu tax du ngeen jéggale yéen wala yatali ulul fadl minkum wasaata an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah bu mu géñ bu mu waat ñi nga xam ne boromi ngëneel lañu am yaatu ci am-am bu ñu waat ne du ñu dépensé ci seen mbokk jege ñaale bu xam ne miskin la te itam dafa gàddaay ci yoonu yàlla déedéet fal yaafu wala yasfahu nañ jéggale nañ effrancé mbir mi fàtte ko buñ ko geestooti alaa tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum xanaa bëggu leen yàlla jéggal leen haa fii Aboubacar nit soppeeku na léegi Aboubacar mu'min moo taxaw Aboubacar mu'min lan la wax ca saasa mu ne aha kay man kay bëgg naa yàlla jéggal ma man kay bëgg naa yàlla jéggal ma géñ naa ne amul benn dépense bu xam ne daan naa ko def ci musta lu dul delloo naa ko ci moom mbokki yi hada huwa al ndax rancune yi ñuy dencante ndax natt nañ ci natt bi mbokk yi waa ji am na lum genn kàddu gum la waxoon rek neexut la te sax kàddu gi amaan na sa njëriñ la waaye ñaari at nga ëmbal ko rancune ci sa xol ndax ñu ngi natt loolu ndax xalaatu njéggalug yàlla ëllëg yàlla subhaanahu wa taala wane nag lu xam ne mbokk yi e, dama naan ku ñeme woon ne suñ jamono tax ndax jamono yonent bi moom ku defoon lu ni mel dañ lay taxawal ci penc bi dóor la juróom-ñett fukki yar mu jeex waaye jamono ji nga xam ne ñu ngi takkal der yi ci jëf ju ñaaw jooju ci yar yu ko fomp nekku fa foofu am na lu yàlla wax inna alladina yarmuuna almuxsanaati alxaafilaati almuminaat luinu fi dunia wal axira même bu dajewu ak dumay àdduna yàlla ne ñooñu di sànni tuuma yooyu ci ñu laab ñu sell ñooñu yàlla ne rëbb nañu leen ci àdduna ak alaxira bu ñu amul yarub àdduna rëbbug àdduna ak alaxira di leen xaar ti keroog mbir ma du soxla seede déedéet loo amee fi dunya wal axira wa lahum azabun azim kayn seede si du leen génn yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu ya'malun yawma si yuwaffihim allahu diinahum alhaq wa ya'lamuuna anna allaha huwa alhaqul mubin keroog bu ñu taxawee seen làmmeñ ya seen loxo ya seen tànk ya ñooy seede ne yéen a doon yàq deri diw sàngam ak deri diw sàngam ak deri diw sàngam loxo yaag làmmiñ ya ak tànk yi keroog rëccukaay du am yàlla ne keroog danañ leen fay seen jëf pay gu mat sëkk te danañu xam ne yàlla mooy fayaakoon bi mooy dëgg subhaanahu wa taala yàlla ne amma lii ñu wax noppi leen Aïcha radiallahu anha moom noon na jàpp yaa gëmoon na ne yàlla dana ko setal ndax xamoon na ne ku set la waaye nag moom yëgoon na ne moo gën a tuuti moo gën a xeebu yàlla di wàcce alquran ci mbiram di ko setal dafa yaakaaroon ne rek yàlla dafay géntuloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ak setam waaye mbokk yi Aïsa dafa xeeb boppam waaye mbir mi xeebuwul fa yàlla ndax gis nga li yàlla wax tax sa bono na wa huwa inda allahi azim dangeen ko yaakaaree lu doyadi ci lu roy la ca yàlla kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la taqal soxna si ku baax taqal ku baax kooku ci boppam la ndax cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Aïcha kenn weerante wu ko te xam ngeen ne cofeel nit ki du ko fabriquer boppam yàlla mooy def ci xol mu bëgg yàlla dana def ci xolu yonent bi mu feex dell bëgg jigéen ju bon kon bu ñu saxalee ak mbonu Aïcha dañu naan yonent bi xolam moo bëgg ko bon xaasa wa kalla jombe na sori na romb na ndax kat inna tuyura ala amsaliha taqa picc yi toujours ña bokk niroo rek ñooy bokk fu ñu féete boo ko seetloo nit ñi bokk bëgg-bëgg ak jubluwaay bu ñu bokkee toog seen jataay day xumb lool day wéttiliku lool waaye boo roofoo ci mboolo moo bokkalul jubluwaay rek nga yëg xat nga yëg xat lool lu tax ñàkk bokk luñ leen mooñe yàlla ne nag alxabisaatu lil xabisiin jigéen ñu bon ña góor ñu bon ñañ la ñuy xaar ju denc leen góor ñu bon ña jigéen ñu bon ña la ñuy ànd ak waaye al tayibaatu li tayibin jigéen ñu sell ña góor ñu sell ñaa leen denc man ndax am na góor gu gën a sell mu sallallahu alayhi wa sallam góor gu gën a sell ci góor ñi dañuy xaar mu am jigéen ju gën a salte loolu moo tax ñenn ci borom xam-xam yi dañu ne man qasafa aba bakrin julit wa man qasafa aisha qutil ñu ne ku tuumaal njaalo aba bakar kooku dañ koy dóor ay yar juróom-ñett fukki yar waaye aisha mii di doomam ku ko tuumaal njaalo dañ koy rey lu tax ñu dañ koy rey parce que alquran la fen loo alquran moo ne ulaika mubarrauna bi ma yaqulun yàlla ne ñooñu Aïcha ak Safaan ibnu Muattal ñu set wecc lañ ci liñ leen waxal ku yàlla setal ku albatiku di ko taqal kan la kan la weddi la weddi ku weddi alquran murtad na bu doon jullit murtad na ci lislaam mbokk bi bii xew-xew war nañ cee jànge awalan yonent bi sallallahu alayhi ñaari bi yi ko yàlla dundal ci kaw suuf mooy étape bu nit kese bu wax yu ñëwagut ak étape bu yonent bu wax yu ñëw ci moom ñu gis ne xat-xat booy xalaat ne dund nga ko ci coono yonent bi sallallahu alayhi wa dund na bu ko gën a metti jafe-jafe booy xalaat yonent bi dund na jafe-jafe bu ko gën a metti lu tax yàlla daf koo def mu nekk royukaay kon loo jaar ci jafe-jafe fàttalekul jafe-jafe yonent bi luñ la wax lu naqari itam fàttalekul ya yonent bi dajet ca ya ko naqari waaye gannaaw gi fàttalekul àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jafe bi ñu dund diiru weer ci ki ñu gën a fonk ci seen bopp gën koo bëgg ci seen bopp muy dund ak ñoom jafe-jafe yi seen xol di lakk te mënuñ ci dara kon nag jàngee ci ne mbir yi ci loxol yàlla subhanahu wa taala la nekk del wéeru ci yàlla la jaaxal di ko jàmbat yàlla di ko ko jooy la nga xemem di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala te xamal ne mbir mu yàlla bank loxoom kat keneen mën koy tàllal loolu nañ ko jàng bu baax a baax ci xew-xew bi waaye nañu jàng bu baax itam ci xew-xew bi waru garu sàmm làmmeñ li ngay ñepp di ko wax même bu doon dëgg wax nga nga koy wax amoo ci njariñ ban intérêt nga ci am rawatina ba mu du dëgg bàkkaar ba cay jële kon sàmm làmmiñ nañ ko jàng mbokki ci qissa bi waaye naka noonu itam nañ jàng ci qissa bi natt sa bopp ci ñeneen ñi natt ñeneen ñi ci sa bopp ñu xool kër abu euh, ayub ansaari ni ñu nattee seen bopp soxna si natt boppam ci aïcha awa ba wala awa ayuba natt ko ci aïcha soxna si natt aba ayuba ci safwaan ibn muattal mbokk yi nañuy natt suñu mbokk yi ci suñu bopp lu ñu jombale suñu bopp buñ ñu ko waxee ci suñuy mbokk nañ ko weddi ti ju yéene leen li ñuy yéene suñu bopp mbokk yi ci fii lañuy ñuy ñëwee ci mujjug qissa bi di yëg ne képp ku ñu waxal lu nekkut ci moom ci mbon mbon na góorgóorlu mu wéeru ci yàlla bu wéeru ci yàlla dëggoo ci moom na xam ne loola yiw la du aw ay qissa bi ci lu fu ko yàlla tàmbale laa taxsabuhu charran lakum bal huwa xayrun lakum du foofu ko tàmbale bu leen ko yaakaar ne aw ay la ci waaye yiw la ci yéen fu ko jeexale ulaayika lahum magfiratun wa risqun karim ulaayika mubarrauna bima yaqulun lahum magfiratun wa risqun karim yàlla ne ñooña setal lañu ca lañ leen waxal waaye la leen yàlla dencal kay mooy njëggal ak warsak wu tedd bu leen yaakaar ay la yiw la ñu ngi leen dencal njëggal ak warsak wu tedd kon lu ñu la mën a wax te nga xam ne yow lañ la waxal du dëgg àndal sago ba yiw wa nga nar am ci yàlla bu ko yàq ci topp sa xol àndal sago ba yiw bu ko yàq ci topp sa xol fala Aïcha radiallahu anha bi ñu bi yonent bi waxee wax ji mu ne bàyyi tontal mënta tontu yaay tontal mënta tontu lan la wax dafa ne sama mbir ci yàlla laa koy delloo fa sabrun jami fa sabrun jamil wallahu ma tasifun danaa muñ muñ gu rafet te xam ne yàlla laay dimbale ko ci li ngeen di wax mbokk lu jombut kër yonent bi du la jomb fexeel kon boo déggee loo mën a dégg luy taqal sab der te mu wér la ne ku ca seet nga waxal la Aïsa waxoon fa sabrun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun danaa muñ muñ ko rafet te dimbandikoo yàlla ci liñ may waxal mbokk yi fii la ñuy yeggee ci jekkalu taxawaay bi tëjee ko genn kàddu gu xam ne benn boroom xam-xamu jullit moo ko waxoon ab labbe xam naa bu ab siie yi yëkkate kàddu gu ni mel moom jarut tontu toj gémmiñ nga la laajoon labbe bi daf ko ne waaw a ah, waaye yéen daal seen soxna si yónnante si moom moom la ñu waxal li ñu wax li ñuy wax borom xam-xam julli bi naka ah ñaari jigéen lañu ci histoire de histoire doomu aadama yépp ñaar lañ ci jigéen ju xam ne am na doom te amut jëkkër ak jigéen ju xam ne am na jëkkër te amut doom yéen jigéen ja am jëkkër amut ñun ñu setal jigéen ji am doom te amul jëkkër jigéen ji am doom te amul jëkkër kan la Mariam ñun julli di setal nañ ko jigéen ji am jëkkër te amut doom kan la ah Isa ñoom ñu taqal ko ku taq noonu lay mel wax ju bon jóge dëkkut fa mu jëm fa mu jóge la dëkk yàlla nañu yàlla warsagal ñu am pas-pas ak njort yu baax ci jullit yi musal ñu ci yépp wax ju xam ne day jur bàkkaar wala mu jur merum yàlla wala mu yàq suñu deru mbokk wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala wa sallam